wala pour euh, information kese wala cinéma kese déedéet tey jii am euh, programme sur le plan religieux donc lu ñuy wax loo xam te ne religion la et tout ay chaînes yu mel nii ay lampe Fall donc euh, ñooñu ñëpp dañ ci lëkkaloog ñoom donc ñuy wasaare li nga xam te ne moom mooy xew foofu noonu ca Touba donc mi ngi noonu. Euh, ci 2019 bii nii euh, suñu vision yamul si def ay promotion kese dañu ne du ñu yem foofu parce que tey jii nii ñi nga xam te ne ñoom ñooy suñuy abonné. am na si ñoo xam te ne xëj na seen loxo matu jotul seen ginnaaw et tout wala seen i mbokk seen i loxo jotul seen i ginnaaw donc dañuy ñëw pour di leen jàppale dolli leen doole dolli leen doole ci naka moy que ne dañoo réfléchir ñu né sur le plan RSE responsable sociétale de l'entreprise donc amna patch bo xamantene xamante bëgg nañ ko ci def ci atu 2019 bi moy comme ça, ni ma la ko waxé doxantu nañ ci ba Touba duñu ñu fofu tamit ci ubité école bi ni comme yaa ma ko xam gis na nekk ne école yu bëri dañuy inondé amna école yu bëri yom tamit tout temps ki dañ fa nek waaye seen i waajur seen loxo jotul seen ginnaw légui canal ci lool nonu la ñëw dal di constituer une forte dynamique bu mu jël dal di ne da fay ñëw jappalé yoyu école école yi nga xam ndox bi fa dugg manam école yi nga xam te élèves yi nek nañ fa mais amuñu lu ñuy jàngé donc fofu tamit bëgg nañ fa ñëw distribuer 300 kits scolaires yo xam te école yooyu nonu ci biir banlieue wu Dakar bi lu si mel ay Pikine euh, ay Thiaroye ay Rufisque donc am na ay école yu ñu fa taamu yoo xam te ne foofu la ñuy njëkkalee lii tàmbali rek la dañuy soog a door donc beneen bii di ñëw xam naa incha allah beneen année dinañ dem ba ci biir région yi tamit incha